Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal leen ak jàmm ci yëglekaay lu jëm ci wàllu jàng meeg jàngale meeg l'école tubaab yi ñu bëgg a taxawal foofee ca dëkk bu sell ba di Touba nag kilifa yi nag nee ñu ma ko xel xalaatee su ko ñu nangu tey du ñu nangu ëllëg ñu fay taxawal ay lekkool publique française bu ngeen tëddee nelaw leen ba yandoor bu kenn def ci xelam ne dinañ bàyyi ñuy dugalaat fii ci biir Touba loolee di école française bi kàddu yooyee moom la Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké amal ca dëkk bu sell ba kenn du fi dugalaat njàngum nasaraan si fii ci biir titre foncier bu Touba lii quotidien ne ko Touba kay ma ngay fësal taxawaayam ci lànk ngir ñu bañ faa ubbi école publique française Cheikh Bassirou Abdou ma ngay tontu nag jëmale ko ci kàddu yi muy dégg boobaak léegi rek ngir ne dañoo bëgg a waat ay l'école yoo xam ne rek dañu fay jàngale nasaraan foofee ca dëkk bu sell ba di Touba moom moomee nag ma ngay xam ne ne loolee du am tey te du am ëllëg Cheikh Bassirou Abdou Khadir sell mi amee na na ko rek jëm ci loolee nga xam ne rek sëriñ Saliou Mbacke moo ko fa jëloon mu di ay dogal moom porte parole bu xalif bi nag ba mu ñëwee doon lancé ab récital coran boo xam ne rek dañu ko doon amal ngir lu jëm ci wàccaayu màggal Touba ci la leeralee nag lu jëm ci taxawaayu mouridisme ak raison yi nga xam ne rek moo daal di poussé kii di Cheikhul Khadim ba mu taxawal dëkk boobee di Touba moom kilifa ak diine gi nag ma ngay fàttali askanu Touba ci képp koo xam ne rek dangaa bëgg a fréquenter école française yooyee nag mën ngaa dem feneen waaye foofee ci dëkk bu sell ba am na ay daara am na école privée yéene te ci loolee la ñuy tënku Vox Populi xëy tënku ci leneen moom mu soxal accident yi nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku ci kaw tali bi yéene kaay bi ne ange de la mort ma ngay dal ci kaw taalibe yi ab gune gu am juróom benn at nag moom la ab man mbëkk mu daal di faatu ci saase loolee nag mi ngi xew démb ca mun naa nekk ca diwaan bu Kaolack ab ndongo bu am fukki at ak ñett moom itam courant daal di koy maas foofee ca Touba bilan bi di gën yokk ci limub ñiy faatu ci biir géej gi ñaari xale yu jigéen ñoo ñàkk seen bakkan ci ab gaal gu suux àllarba ji ñu weesu mercredi yemook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet atum 2024 ab taalibe daal di ñàkk bakkanam ginnaaw bi ko ab charrette mbëkkee foofee ca daara fanweeri fan ci weeru juillet beneenub gone ñàkk bakkanam ci ab bassin de rétention foofee ca daaru marnaana aljuma yemook ñaari fan jàpp samedi yemook ñetti fan ci weeru août atum 2024 juróom ci ay taalibe ñàkk seen bakkan ci ab lakk-lakk gu amoon foofee ca kër Malamine ca Tiwaawoon Walf Quotidien faylu ko ne lu jëm ci accident yooyee nga xam ne rek ñu ngi koy nemmeeku ci kaw tali bi Ousmane Sonko bàyyilul dara askan di way takk der yi ba ci ñi nga xam ne rek ñooy amal visite technique beeg parc automobile bi nga xam ne rek dafa obsolète loolee lépp ma nga koy joxoñ baaraamu tuuma yéene bi ne Sonko kay ma ngay joxar bi baaraamu tuuma wàllu corruption bi mu jàpp ne nag lu jiin njaaga mooy njaag ci yooyee accident les ko yëglekaay ne ko ab conseil interministériel nag jëmale ko ci wàllu sécurité routière Ousmane Sonko ma ngi koy waajal ginnaaw bi mu ñaawluwee nag wàllu ger gi mu jàpp ne daal moo waral bakkan yi di faatu ci kaw tali bi mu ne nag fi mu toll ni jeex na tàkk accident yi daañ ay matukaay responsabilité yëpp daañu ko situé bu ko defee nag kenn ku ci nekk état bu Sénégal dina jëflanteeg yow ñeel comportement bi nga xam ne rek moom ngay wane ci kaw tali bi le temps mooy yëglekaay addu jëmale ci accident yi nga xam ne rek mooy faral di am ci kaw tali bi yéenekaay bi ne Ousmane Sonko ma ngay génn ci cellaaral gi mu nekkoon ma ngay duut baaraam lu jëm ci wàllu ger gi jàpp na ne nag loolee bokk na ci li waral askan wi di faatu ci kaw tali bi waaye fi mu toll nii nag ñoom état bu Sénégal daañu jël seen ay matukaay ci lépp xam accident libération ni ko xeex bi jëm ci wàllum accident yi kay moom premier ministre bu Sénégal ma ngay mobiliser gouvernement bi rek jëm ci wàllu ger gi nga xam ne rek moom la ñuy tudd ci kaw tali bi lu jëm ci wàllu visite technique yi waaye màggataay bi ñuy nemmeeku ci yenn wote yu Ousmane Sonko ma nga cay annoncé ay mesures yu doy waar Le Soleil yëglekaay ne ko Sonko kay fi mu toll nii nag nee na responsabilité yëpp nag daañu ko jël ginnaaw accident yi nga xam ne rek moo jot am ci biir réew Sénégal addu ci leneen mu di Le Quotidien yëglekaay moom tey dafa xëy ci chamboulement diplomatique yi nga xam ne rek ñu ngi koy waajale yéenekaay bi ne am na ay yeesal yoo xam ne rek daañu ko indi ci ambassadeurs yeeg consul yi vox populi ne ko ginnaaw administration territoriale moom jiitu réew mi nag fas yéene naa yëngalaat nag lu jëm ci wàllu magistrature bi président Bassirou Diomaye Faye fas yéene naa amal am ndaje mu njëkk ñeel conseil supérieur de la magistrature tey jii lay doon ca palais de la république mu mel ne nag ay coppite daañu ko indi ci wàllu wi nag laataa ñoo tàmbalee topp nag ñi nga xam ne ñoo fi doon def ay mbuxum ci nguur gi fi nekkoon tey jii moom ci lu jëm ci wàllu procès en diffamation bi nga xam ne rek mi ngi doxoon ci diggante Mansour Faye ak Mimi Touré ñeel scandale yu fond force Covid 19 yéene kaay bi ne Mimi Touré moom daal dinay am ndam ci kanamu Mansour Faye délibération bi nga xam ne rek moo soxal coowal diffamation bi ci lu ñeel koppar yi ñu dugaloon ci Covid 19 bi nag Mansour Faye ak Aminata Touré nag démb woon ci kanamu àttekat bi tribunal bu Ndakaaru nag bàyyi nañu Aminata Touré toppeewuñu ko dara Mansour Faye daal dinañu koy débouté ci loolee nga xam ne rek moom la doon toppee Aminata Touré Touré nee ñu daal dara amu ci enquête yëglekaay ne tuumay diffamation la ko doon toppee waaye Mimi Touré nag mujj nañu ko setal ba mu set wecc waral ba yëglekaay bi ne Mansour Faye ñàkk na ci kanamu Aminata Touré point acti ci kàddu yi nga xam ne rek moom la avocat bu Mansour Faye yëkkati maître Ousmane Thiam nag ma ngay xam ne ni tribunal ci boppam nag moo la gën a xam ne Aminata Touré moomee waxul dëgg juge bi da koo baal loolee nag moo waral dogal gi tukkee tey jii ci àtte bi Le Soleil yëglekaay xëy amal waxtaan waam solo ak Boubacar Camara ñu naan di président bu parti jéngu moom moomee nag di joxe xalaatam ci gouvernement bu Sénégal mu ne lu jëm ci wàllu réduction des comptes nag waruñu ko analyser ci ay termes de séquence waaye dañu ko war a def nag activité permanente mu yokk ci ne député yi ci boppam dañoo jox seen bopp loo xam ne rek kenn joxu leen ko te leen rek moo mën a saafara jafe-jafe yi mooy ñu daal di tas assemblée nationale donte ne conditions yi nga xam ne rek moo war ngir ñu daal di def lu ni nag réunir agul waaye nag dañu koy jaarale ci ay loi yu yoo xam ne rek dinañ mën a amal appel à jublu ci wàllu tàggat yaram ak mboolem yéenekaay yoo xam ne rek dañ ciy yëngu xëyee nañ tey ji nag lu jëm ci faatu ki nga xam ne rek moo fi nekkoon président bu kaaf di Issa Hayatou moom moomee nag wuy ji na boromam ci bi muy am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar réew mi sport ne ko football jamono ji nag mi ngi ci aw tiis Issa Hayatou moom génn na àdduna foofee ca Paris moom moomee nag moo fi jiite woon kaaf dirub fanweeri at lu jëm ci Jeux olympiques yu atum 2024 yéenekaay bi ne athlète sénégalais yëpp éliminé nañu leen waa Maroc nag ñoom ñoo